bandi la nit boo nit bu ñu nee boroom xam-xam la nga ni bandi la war ngaa argumenté liy wane ni bandi la nee naa la jabaram ji mu jëlee Saalum indi ko fii dafa xëy abandonné ndaw si bi mu ko abandonné dajeeg benn femme boo xam ni moodu moodu la mu takk mu mu abandonné ndaw si maanaam nekk ak ndaw ndaw soosu ñuy tuddee moodu moodu di ko tëddee ci biir kër gi di ko tëddee di ko tëddee ba affaire bi soof yaayu ndaw si xoola mu jël ko ñu ànd ñu may ko ko mu abandonné aawam kon moom ñàkk gum ñàkk sargal jigéen moo tax mu alku nii bay xas gor ñi ndaw soosu la àndal dem Modou Modou ji bi Modou Modou jee ñëw échec amatul liggéey parce que jigéen ko ko trahir gis ko léegi bi mu ñibbisee xam ne réew mi doxul mu dem làqatu ci ginnaaw Marème fay Sall Marème Fall di ko jox xaalis léegi nag rëbbi na Marème fay Sall tëj na mu jóg di song songu Sonko di ko tuumaal wax ju ñaaw ji moom c'est un lâche bokkul Tivaouane Tivaouane ku fa bokk doo wax yenn wax yu ñaaw yi maa ngi nuyu bu baax wax xadara ba yëpp di nuyu Serigne Babacar Sy suur ak xadara ba ña fa nekk parce que man Tivaouane kenn ëppale wu ma fa fa laa bokk sama maam yëpp Tivaouane lañ yaakaar man sama maam alaaj Cerno drame alaaji Malick ko tarbiya yebal ko mu dem àndulaay jël astu siise bi jur sama baay may ko ko kon man kenn ëppale wu ma Tivaouane sama maam da wax ne man xaw ma sama cere yaay cere soxna safeetu ñang laa xam di ëmmat si sa pir man maa ko ëppale Tiwaawan moom xamul Tiwaawan Tiwaawan bandi du fa dëkk yow bandi bu mag nga te barke Seexu Tiijaan dinañ la duma wuyu nga gis nga ñi ngay menacé ñun bokkuñu ci yow wuyu bu mag nga parce que da ngaa mooy yàlla mooy yàlla ci nga moo la moo tax nanguwoo gis li yàlla dogal ci sunk boo gëmoon qul illahumma malikal mulki tuutil mulka man tasha wa tanziul mulka mi man tasha wa tuizzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal boo ko gëmoon di nga gëm ni nguur yàlla moo koy joxe mais booy ndaw yow bandi nga te dinañ la wan ni doo bandi ñi ngay tuumaal góor jigéen ñoo la gën fuuf seen dàll sax la gën dinañ la caw ak képp ku ànd ak yow barke Seexu Tijaan gis nga waxi reewande yooyu ñu nekkoon ay baa jaxane di wax waxi reewande day dakk billaahi day dakk loolu ñun jël nañ ci suñuy responsabilité ñun dinañ def plainte collectif man dinaa ko porté yaa ngi dégg te kim tuumaal lii dina ko porté parce que kim tuumaal lii as gor la xam naa ko Ndiaga Seck gor la jullit la taawam Ousmane Sonko la ko tuddee taawam Ousmane Sonko la ko tuddee booy ndaw ngay wër ci télé yi di fen taxawaalu sa dund gi yëpp ci njaaloo nga ko def man xam naa la castor gi nga dëkkoon di fat xale yu jigéen yi njaaloo ci nga nekk ba alku toog di làqatu ci ginnaaw Tiwaawan Tiwaawan ku fa bokk am na loo xam doo ko wax ñun xam nañ Tiwaawan Tiwaawan googu man gënoo ma faa dëkk yaa ngi dëkk ku bokk Tiwaawan am na loo xam doo ko wax la Hadji Malick loolu wax Tiwaawan madinatul ilm la wan nuur waaw loolu alaaji Mansour a ko wax mais leer gi dafa bari bari goo xam boo fa nekkee fawee sa jëmm ji moom lu mu doon def kër père kër père la fa nekkee woon man xam naa ko sama Tiwaawan laa dëkkoon dëkk boo fa defee dix ans xam nga ko yaa ngi dégg fat xale yu jigéen yi di njaaloog ñoom loolu la doon def comme day wax wax ju bon rek ah, non déglu ma ñun yonent bi ñu jàngal laa yuhibbu llaahu ljahra bi suui min al qawli illa man zulima kooku alquran la yàlla nee na bu ñu leen tooñee wax ju ñaaw na ngeen ko delloo li may def ni sunna la de nit bu la waxee wax ju ñaaw danga ko koy delloo soo ko mënta muñ man mënuma ko muñ dama ko koy delloo wa in aaqabtum fa aaqibu bi misli ma uqibtum alquran la wala in sabartum la huwa xayrun yaa ngi dégg man xasuma ko de lii may def nii mooy diine bandi bu mel ni booy ndaw nga xam ni dundam gi yëpp ci njaalo la ko def njaalokat bu mag la gel yi mu doon tëddee ñu ngi fii Castor man xam naa leen ñëw nañ ci man ma ni leen toog leen rek kooku kaawam dinañ ko régler yow ñun mën nañoo yor état nga ñuy xoqatal di fen parce que Marème Faye Sall ay rébinaam tëj na dinañ la caw digg bëccëg ak ku ànd ak yow barke Cheikhou Tidiane maa la ko wax nañ avancé nañ avancé ci base yi. Mhm. yi nekk ci réew mi également Ousmane Sonko àdduna ci euh, jàpp na ni euh, euh, dafa maanaam seen nekk fii dina waroog li ñu woote loolu mooy du yàgg war nañ fee mën a jóge nga jàpp ne ci ban diir la ñu yegg ci loolu. waaw mais loolu. te sànq am na loo cof bëgg naa yéen nga leeral ko li nga ni li président Bassirou Diomaye Diakhar fay wax ci souveraineté bàyyi li ñu dundee képp ku ko mos a ci Afrique. am na ñu sàkkal nañ la pexe loolu mooy ko waxee lan nga ci junj laataan ñëw ci base yi xam nga boroom xam-xam boroom xam-xam moom dafa war a wax ci li ñëwagul hmm. képp koo dégg mu topp ci li ci li nit ñi di wax kooku kenn tuddeewu ko boroom xam-xam boroom xam-xam lañ soxla ci moom mooy lu muy wax li agseegul hmm. man dama la delloo ci histoire Thomas Sankara koroog ba mu ne Burkina dafa war di bay di dunde naa dafa war a dépendre ci boppam ci la ko tubaab yi sàkkal pexe moo tax bi Diomaye waxee loolu sénégalais yi wara a vigilant mhm. xam ne lii mu wax ñi ko wax ci Afrique ñëpp dañ leen a sàkkal pexe Mursi ba mu ko waxee ci la ko tubaab yi sàkkal pexe yaa ngi dégg sénégalais yi war a vigilant jàppale Diomaye xoola non seulement accompagner ko waaye nag veiller bu baax ci sécurité te wàllu googu awma ci lu may tiit waaw parce que ñu fi nekk wóolu naa leen sama armée gendarmerie police samay renseignement wóolu naa leen moom. dañoo war a surveiller tamit président euh, kii Macky Sall. mi liggéey ak yàgg naa ko man du ma wax de sànni lu ma war am na fu ma ko teg Macky Sall bu nekk Maroc. Ah. di jëflanteeg France ak ñun position yi ñu am ci France kooku dañ koy surveiller boo ko surveiller wul xamoo état kon Diomaye li mu wax souverinité alimentaire la tudd. ñi ko mos a tudd ci àdduna bi yëpp oxident jóg nañ pour jóg nañ pour sàggal leen pexe mu nekk mu nekk solution nag parce que solution la indi. Hmm. président de la république doo toog ñu lay jox ay ay këyit koo gis mu toog ci pale bi ñu koy joxi këyit liggéeyul da ngay dem fa mbir ya nekk nga xoolal sa bopp. ba hmm. pare mu def fa discours bu responsable ni man la ministre biir politique lowuma ko. Mabouba Diagne ma Mabouba Diagne. politique loo ma ko parce que lu toll ministre l' agriculture ak ni mu amee njariñ ci réew mi boo ko bëggee politique loo rek yaa ko échec loo da nga koy bàyyi mu liggéey ni ko liggéey bi ngay liggéey bul yem ci service yi service yi wàccal ba ci suuf gisee ak acteurs yi gisee acteurs yi waaw loolu mooy discours boo xam ni kii wax xam na réew mi ki ah, wax nee service yi mën laa sëlëm non service yi ku dee ñoo la rey <laughs> parce que service yi ñu ci bari ay politiciens ciy nekk ñu ci bari seen bopp lañ fay nekkal ci calcule lañ nekk yaa ngi dégg kon Diomaye discours bu responsable la def te discours bii wax ba pare am am am am am am honnêteté xam nga nit da ngay am honnêteté intellectuelle hmm. wane ne bu ñu dawalee ñetti at ñu xool ba xam li ñu def baax na bu baaxee ñu kon ne bu baaxul ñu joyeen at sax la wax at at loolu mooy discours bu responsable Diomaye ay actes yu fort lay teg mais malheureusement ñi ànd ak moom ci nelaw lañ nekk kenn waxu ci justement ñan ñan nga ni. ñoo ci war a wax waa Pastef lu waral noppi gi ci ñoom. ñoo ko xam boo ko gisee laaj leen ko. Pastef wala yi ñuy séddale nii la ñuy ñàkk fayda yi ay poste yi nga xam ne matul sax un million. te mën na laa tënk sax pour réew mi tey ñu waroon a génn porté li jama yow jamaay li mu li mu tegagul nii ci acte kenn tegu ko gouvernement de rupture la teg vingt cinq députés vingt cinq ministre cinq secrétariats loolu rek war naa tax nga occuper média engrais bii nga xam ni tey baykat yi problème la woon ci ñoom dëkk boo dem ci Sénégal tey jii mënuñu woon a jot ci engrais bi interlocuteurs yi ñoo doon jël engrais bi di ko di ko di tëdd ci tey engrais bi wàññi nañ ko ba pare jël arme bi mu koy superviser mais lii mooy lii mooy politique lii am réew nit dina fa nekk di ko def nga bëgg a nit ñi góor jigéen góor jigéen te ki ngay wax gën laa bañ góor jigéen gën la ko gën la ko rejeté moo tax man la waa Pastef kenn xamul ci luñ nekk man nag yàgg naa di wax Pastef tënku ma man moo tax man bu may wax du tàggu kenn yaa ngi dégg. Mm. waaw daanam réew mi il faut ñu jiital Sénégal ci lii ci intérêt général ñu fàtte suñ bopp yi fàtte suñ jëmm yi Sonko mi ak Diomaye bu ñu rëccee dinañ torox ba faw dama koy wax opposition la woon de parce que damaa xamoon fi ñu jëm gisoon vision bi te man du ma seen taalibe de yow xam nga loolu man duma ma taalibe kenn <laughs> barke Cheikhou Tidiane billahi man du ma taalibe kenn ku ma toogal da ngay wax jox ma ma wax jox la mën naa la rus nag jox la cër mais looy wax maa ngi koy analyser hmm. ñaari boy yi buñ ñu rëccee bu yow ñu dem lekki mbopp xam ni réew mi dootul jag léegi boo naan ñu vigilant mooy lan. boo naan vigilant mooy vigilant bi ci jiitu mooy le peuple sénégalais la jeunesse ñoo war a jug def bouclier derrière Ousmane Sonko pour li mu bëgg a def ci réew mi moo président Diomaye ñu mën ko réussir sinon politiciens yi bëgguñu réew mi waa APR yow xam nga ne bëgguñu réew mi loolu kenn du la ko wax lépp lu bon lu nit def ci réew mi def nañ ko fi rey nañ toroxal nañ tëj nañ. exilé nañ ñooñu am nañ benn leçon de morale bu ñuy jox sàcc ay milliards teeku. Hmm? loolooy dëgg. li waa ji Diouf Bodian doon wax. loolooy dëgg. xam nga ci daraam. man ma dëkk ci réew mi Waly Diouf Bodian daf ma ëpp information <laughs> Waly Diouf Bodian xëy na moom day politique am na loom du ci àgg mais waa APR ku werante sàcc na ñoom sàcc ñu xanaa nekkoo ci réew mi léegi kay dañuy bàyyi jour li ma d'accord kay mooy. Hmm. nañ bàyyi yoon wane ko. mais yow xam nga ni sàcc nañ man xam naa ni sàcc nañ kooku nag war na maa xoqatal man mi sàccul te man ba may liggéeyal Sénégal boobu xaw ma la barke Cheikhu Tidiane man ku ma ku ma ci maytul naa la wax musiba. mais daam nee man du ma man du ma politicien yi de kaa ñuy nga man su ma la waree wax musiba damay ñëw sañ sal sal sama jasineer bu rafet toog <laughs> xool ci bëgg jàmm maytu ma man man du ma politicien man wutuma dara yii ñuy xoqatalee politicien bu ñu nee nii ñu naan coow dara du fi xew ay bandi ngeen. da ngeen a sàcc alalu réew mi looloy dëgg. Dame Mbodj nee na ku wowul njiit li moom bul woo keneen. waaw loolu beneen débat la loolu beneen débat la. njiit li bu ko laajee ça dépend ci comportement man wax naa ko. Ah. nee naa leen bu nekkee nit amul problème mais bu mel ne dañ ko war a woo. loolu laa gëm parce que réew bu ñu ko waree tabax fit moo koy tabax ak courage ak ah, justice lan mooy bu nekkee nit ak bu nekkul nit. Macky Sall mën naa nekk am na loo xam ne réew mi soxla na ko. gii mën na faa nekk. buñ nee nii coup de fil am dugg ci réew mi. tam bàyyi fi ay milliardaires yoo xam ñëpp xam nañ ne ay sàcc lañ nga continuer bàyyi Macky Sall kon yow bëggoo gouverner réew loolu Sonko bu ko neexee na ko def ak Diomaye seen affaire la. ah wala du xudey bi bi mu nettali woon moo fa jaar non xudey na. waaw non dama xudey li tax mu mel ni comme daa am protection moom. non protection moom ancien président de la. république république kenn amu ci protection. ku ah, dul ci jubal may waxtaanee la de wala xudey bi pacte la de. waaw waaw pacte pacte lan. pacte dëgg mooy. pacte bi xam nga moo doon lan. Ah. mooy moom ñaari mandat la waroon am organiser élection yi. loolu kese. xam nga yow loolu man li ma ci xam ñu bari coow yi xamuñu ko. loi d'amnistie bokkul ci pacte. waaw déglu bala ñuy dugg fa bala ñuy damay bañ a jaxase waxtaan xam nga ni man dossier boobu xam naa ci dara. man ba may toog fii naan nañ dialogue boobu réew mi ku ko fi wax ñu attaqué la. ma ne dañuy dialogue buñ dialoguul réew mi duñ ci jot. wala gëmoon. fii nii nga toogoon wax. yaa ngi attaqué ma. Ah. soo ko génn négociation am na. te dara nekku ci parce que loolu yonent bee ko jàngale sallallahu alayhi wa sallam Xudaybiya dafa am ci lislaam Xudaybiya tekkiwul sabooti nguuru jàmbur waaw dégg nga wax bi eh. waaw bu ñu def amalgame Macky Sall daal li ma gëm moom bu fekkee dafa toog ni correct ni cocc nekk ancien président nañ ko jox wàcc waayam parce que mérité na ko donc mérité wu ko sax mais nañ ko ko jox pour le Sénégal parce que ñi fi dee ñëpp am na ci responsabilité mais nañ ko jox pour le Sénégal pour l'image du Sénégal yaa ngi dégg waaye bu fekkee dafa bëgg a nekk à distance di ruube réew mi ah, buggul réew mi dal dañ ko war a jëli. dañ ko war a jëli. dañ ko war a jëli man Imam Dramé maa la ko wax keneen lu la waay wax waxula information bu baax bi contre contrepoids nag fi lañ ko fekk te du fi jóg. mais contre poir ak ak complot du benn état dafa am norme yoo dañ ko war a respecter norme souveraineté képp ku koy wax dañ laa war a protéger te moom la Diomaye di wax. Hmm. dégg nga fi may waxee. waay buñ jaawalee man du ma dictateur gëmuma dictateur Macky Sall ak dictateur moo tax jariñu ma dara. Hmm. parce que bu doon dafa équilibre ñii di wax ñëpp maa leen ko gënoon a xam lu ma bëggoon ci moom mu yomb. mais ni mu yoree woon réew mi moo tax ma bàyyi ko xeex ak moom ba mu wàcc yaa ngi dégg kon man dama gëm ni pouvoir day soxla contre pouvoir law kaana fihima alihatun illa allahu la fasadata alquran la yàlla nee na benn nit rek moo soxlawul contre pouvoir muy man mais contre pouvoir ñëpp ko soxla waaye xam nga lu ma d'accordul sabotage nekk opposant boo xam da ngaa sàcc alalu réew mi tëdd ci di jaar ci presse wala di jaar ci ay chroniqueur wala di jaar ci ñeneen pour déstabiliser réew mi kooku nguur gu am fulla doo ko nangu lii mooy débat bi débat yi ñu fi wax yëpp du débat réew mi yi ñu fi wax yëpp du débat débat yii la war a teg imposé ko ñu débat ci mooy sécurité réew mi hmm. sécurité président de la république sécurité premier ministre parce que débat yi ñuy yi ñu laal ni hmm. ñi ko laal ci àdduna bi yëpp gars yi dañ leen a faagaaga man maa koy wax te man mi ko wax du ma jaayil de. moo tax nga jàpp ni kon ni ñuy xalaatee dem base bi it day ànd ci sécurité ñaar ñooñ ci lay bokk. Ah. yow France dafa nga ne di nga tudd base politique am base boo xam ne depuis 60 ba tey mu ngi fi ak intérêt yi mu am Afrique nga tudd ko France di la bàyyi noonu noonu rek dafay commencer di la infiltrer bu lay infiltre ci presse lay jaar bu lay infiltrer ci sa opposant lay jaar. Mhm. lii maa la ko wax. opposant bi jamono ji Amadou Ba la tudd. waaw na yëngu rek ñu ngi koy déglu ba xam fu mu jëm bu opposé woon normal moom amul problème nañ ko bàyyi mu opposé wu démocratie ko soxla bu nekkee di complot ak France dañoo war a jëflante moom man lii laa gëm. jëflante ci yoon. waaw complot ci réew dañ koy tere. yi fi ay saaga nit ñi xas gor ñi nii wax lu la neex. toog sa kër ay attentat contre l'autorité de l'État loolu Macky Sall la ko fi Macky Sall la ko fi daan jiiñ Ousmane Sonko. déglul rek complot délit képp ku xas gor te amoo ci preuve délit la képp ku la gëmloo ni da ngay gouverner réew mi te doo jàpp ay nit yuy yuy def yëfi bandi kooku xamul Sénégal hmm. bandi kaso la war a dem tëdd kuy wax nag koo xam ne day wax loo xam ne luy jariñ réew mi la même bu ngeen bokkul camp da koy tàcc pour jël idée ci moom mais bandi bu mel ni booy ndaw warta fanaan këram procureur daf ko war a jàpp loolu laa gëm parce que ab institution la attaqué loolu laa gëm bandi bu mel ni baa Diakhaté dañ ko war a jàpp parce que day sosal gor ñi barke Cheikhou Tidiane Bah Diakhaté ak Baye Ndaw waruñoo fanaan seen kër bu dee réew mi république la ku gëmloo Sonko ni ko ñii da leen di bàyyi ñu koy xas di ko fa yàq deram yaa ngi dégg di ko wax wax ju ñaaw Sonko ni day maslaa ci loolu mooy xamul réew mi réew mi mënoo ko gouverner ci noonu réew mi da koy guverne ci dëgg rek bàyyi ñi nga xam ne dañuy wax débat d'idées ñooñu soxla nañ leen ci démocratie. Mhm. mais kuy xas as gor bay tudd ay waajuram billaahi kooku dañ laa war a jàpp. Oh, procureur dafa comme ci mënti doon. comme ci mënti doon même boo bokkee Pastef. Ah. Eh, déglu li may wax nii ah. man loolu laa gëm. même boo bokkee Pastef dañ laa war a jàpp. dëgg la yaa ngi dégg waxuma la ak nag nga bokk feneen. bandi bu mel ni Bah Diakhaté occupé la média yi de li muy wax yëpp day fen man mi tuumaal na fi njaalo hmm? man ma ne ko xamoo man ñaari jeeg laa <laughs> man du ma njaaloo seex bi boo demoon fa ma dëkk laaj leen kan mooy imaam li nga wax doo dootoo ci doll doo dootoo ci dellu te xamal lu ma tumalee jël doomu Fuuta tàmp ji teg ko ci tele bi ni ni ko neel imaam Dramé moo ma violé loolu rafet na ma woo ko muy lox ma ne ko dinaa teg sa ah, ah. waay boo ma xamoon doomu tumaal dama lay wax rek man ngay jéema a tumaal di ma man dama am man ñaari jabar laa yor teel teel a takki soxna xale yi nekk fi bari bay bëgg de su ma nee damay dem takk jël ci. Hmm. yaa ngi dégg mu dem ba ci biir xale bi jigéen bi ni noo mu xaw ma imaam waaye baa jaxate moo ma ko santoon ak mati trois pom pour ñoom loolu fàtte naa ko parce que boobu taluma leen woon combat bi fi mu tolloon la malgré taluma leen woon mais am na ay kilifa yu ko woo ci nguuru Macky Sall ni ko da ngay fen imaam xam nañ ko de kooku li muy régler ci réew mi boo ko xamoon di nga ko respecté. ay kilifa yu bokk APR ñoo ko woo Bah Diakhaté clochard la wërta toog këram parce que li muy wax ci réew mi amul benn loi bu ko accepté yaa ngi dégg procureur dafa war a autosaisir yii ñuy wax ni naan non duñ jàpp kenn lan mooy duñ jàpp kenn ku def la ko sudul noonu ñun Macky Sall mosuñoo wax bu mu jàpp kenn danaan jàpp ñu mu wër te jàpp ñu def amal gaam koo xam ni moom kenn warulaa jàpp parce que da ngaa joxe sa opinion kenn kenn warulaa jàpp mais bandi buy saaga institution yi dañ laa war a jàpp bu buñ def barki barke Cheikhou bu ñu duggee ci amalgame boobu duñ gouverner Sénégal mën nag magum xamoon naa ko laa magum waxoon naa ko dama magum xamoon naa ko te lu ma wax sama deret lay jóge alors imam maa ngi jot ah. ay xibaar léegi ñuy wax ni dig jàpp nañu Bah Diakhaté. nag waaye yow jox ma loxo. loolu loolu mooy rolu dikk ñu ñu ne offense au premier ministre l' activiste Bah Diakhaté arrêté ah. par la DIC. mais mais DIC bu deful loolu lan la war a def. kon kay jeex na indi ndox mu sedd ñu naan na dem wax léegi kat mooy góor jigéen na ko wax ci kanamu dig dig ah. moom ku fa dem di nga jàkkaarloog ay góor yu dëgër man kaay ma wax la de musuma bokk ci ñi gëm naan xoola diw duñ ko jàpp hmm. ku offensé ab chef de l'état dañ laa war a jàpp man musuma offensé Macky Sall ah génneel archive musuma def appel à l'insurrection parce que xam naa lan mooy état bu ñu def amal amalgame parce que man xam naa république man te dama ko gëm billaahi wallahi tallaahi kenn gënumaa gëm république man musuma def appel à l'insurrection musuma wax ni euh, musuma wax ni ne nañ def naka su dul noonu nañ taal ci digg xeex bi bi xeex bi taree dama ne kuy taal di toj ànduma ak yow na leer ku ne na nga jël say responsabilité réew am na bandi yoo xam ne seen place mooy prison te baa jaxati ci ñooñu la bokk booy ndaw ci ñooñu la bokk li mooy dëkk li mooy dëkk waa nañ avancé. Hmm. nga xam ne justice pour ñëpp la mais justice bu justice bu amul ci réew réew mu amul réew bu amul justice mënoo koo gouverner buñ jaawale réew justice li tax ñu koy teg xam nga pour lan ku ne xam fi nga war a yem. Hmm. li bon li Macky Sall doon def du justice loolu acharnement la ñun loolu dañ koy xeex ba nii may waxee yow te man d'accorduma ci tey buñ jàppoon léegi le principal opposant ci lu dul dëgg ma dénoncé ko parce que man loolu mënuma ci dara bu ma koy def sama deret du ko yëg. Hmm. mais booy ndaw bandi bii dañ ko war a jàpp. fu ñu jàppee baa Diakhaté moom lañ ko war a jàpp. waaw parce que boo jàppee Bah Diakhaté bàyyi booy bi mooy tegu ko affaire bi ci yoon. Hmm. sëñ bi réew mi réew mi ne réew mu neex a defar la Sénégal a gën a neex a defar ci àdduna bi mais da ngay am fit pour defar ko da ngay am courage pour defar ko ñii di xëbalaate ñëpp ay tàppet lañ. ndax li nga wax a waral lii. jàpp Bah Diakhaté déedéet taxul man mënuma orienté état yow tamit boo xamee état. man awma benn influence ci état yoruma benn ndomba tànk man citoyen buy wax laa fas yéene réew mi ñu jiital ko ci kanam te loolu commencé wu ma ko tey bu ñu xàmmee ci combat bi citoyen bu ñu xàmmee ci man awma benn influence man Sonko kaay ma wax la nag man Sonko awma ci ma benn influence man ah. Sonko contrôlé wu ma mon frère loolu ñu bari xamuñu ko contrôlé wu soo ko bu contrôlé woon di nga ma gis man parti bi yëpp ni dañuy dañuy kii man ni dañuy dialogue <laughs> yow tamit man kenn contrôlé wu ma Sonko xamal lu ñu boole yàlla ma nattu ci moom ma am ci moom yaakaar rek mais yow man man kenn mënu maa contrôler yow tamit nit am na formation yooyu am kenn mënu laa contrôler yaa ngi dégg. Hmm. guddi kan nga gis ci plateau yi muy wax. dañuy gis ah bi may ñëw fii sama lii kenn jënd ko maa ko jënd sama bopp <laughs> su may paas maay ñëw su may paas maay dellu parce que mosuñu maa jox cent franc te xaaruma ko ci ñoom réew mi moo ñu boole ma am ci ñoom yaakaar. di leen jàppale yii gars yi nekk nii man nekkuma ci calcul yi su ma neexoon toog ni man xeex naa damay kii ñu négocier ñu jox ma. Hmm. mais defuma loolu. pale boo ma fa invité wul doo ma fa gis aw ma jot a taxawaalu